ma ñëw ci kaawu Massaly Massaly dafa ñëwoon ci laay fu doomi xaj ji mu ne El moo ko woo ne ko mama dafa porte woon plainte daam Sène ba yàgg mu ne daam seen amul dara bu demul woyaani tëgg ñu may ko du am lum lekk kon moom masali moo am moo tax ñu tuumalaat ko juruloo doom ji mu ne elkapo moo ko wax loolu yéen ñëpp dégg ngeen loolu man ci suma bopp yëkkati naa téléphone woo El Capo naa téléphone woo El Capo mu ne moom liggéeyam la xam liggéeyam lay def te ci loolu la yem mu ne moom mësta liggéey polisu Médina ci àddina mësta am te mësta woo ma sali musut koo wax etugu police lu mu nanguwul moom du ko def kon elkapo Capo moo wax man mu ne Massaly dafay fet moom xamut sax numéro Massaly waxut ak moom defut ak moom El ngi dund man maa ngi dund ñu ngi koy gérer ndax mbokk taalibe la kon Massaly ginnaaw bi nga fenee ne da ñëw Amérique porte ma plainte nga duul ba ñëpp xam ne ñëwoo El mu ne musut laa woo musut la ko wax nga ne polisu Medina lay liggéey El Capo mu ne mësta liggéey polisu Medina kon foofu fenati nga sa fen yi nag xale yi duñ am joti topp ko danga fen ba yow danga leen mujj soof ñoom amuñ sa jot beneen ba ca des xeeb bi nga xeeb daam seen ak yabaate bi nga ko yeb ba ne moom bu tëgg ji wut woyaaniw du am dama bëgg nga xam ne kilifa du politicien bu occupé poste mooy kilifa kilifa critère la te Dame seen moo la gën a bañ sobe moo la dàq jaamu yàlla moo la gën a màndu te moo la gën wéy wéy ci réew mi doon géwél nag taxut a xeebu géwél buy woyaan ay géram taxut a xeebu te ku xeebu ko amul ci rek mooy xeeb loolu ndax géer ñee géwél ñaa fi nekk kon yebaate boobu nga yeb daam seen ak xeebaate boobu daam seen mu ne moo wax téléphone man ma dégg xam nga man du ma enregistré kenn daam seen mu ne dafa waroon a toog Amérique lu yàgg door a ñëw waaye daf koy bàyyi ñëw senegal ndax ma tuumalut ko yow yaa ko tudd yaa ko tuumal yaa koy yablu yaa ko xeeb mu ne moom du la porte plainte du la ne nga ne ma ne dafay ñëw wàcc Sénégal bàyyi Amérique gam nekk na la Mamadou Massaly yaa ma tudd mamaa ngi nii man yow ak xale bi neen dem ñu def test ADN ku moom doom ji jël mu ne tuuma bi du moom ñàkkul classe ñàkkul personnalité ba toog naan nga ne mu ne mu ne du def loolu de moom géwél bu xam boppam la dafay wàcc Sénégal du xaar sa heure bu mu waroon a ñëw ndax tuuma njaalo ADN moo koy setal mu ne moom dana ñëw woo la yow téléphone Massaly wala mu woo mama wala mu woo nit ñi bañ xam ne ñëw na mu téye xale bi ñu dem man may fay man Cheikh Ahmed Cissé man man danaa fay 350 mille pour test ADN moom mu ñëw test yow soo ñemee sa bopp wóolu ne kilifa nga wërkati kaaba nga da ngay dem ci jumaa yi Seydina Limaamu Laay comme ni nga ko waxee di umra di la katoo mama wu laaloo ko bëggoo daam seen moom dana dagg biyel biye boppam Séné Amérique porte ji wut plainte kenn de yow mi fi duulan da nga ñëw dimanche porté ma plainte moom dafay dagg billet ñëw Sénégal pour yow Massaly yabaate bi nga ko yab tuuma bi nga ko tuumaal ci askan wi tudd turam mu ñëw def test ADN su ko moomee rek raxas doomam ba mu seet jël dugal këram mu sant seen waaye ngel la Massaly sa duul yu rëy su daam seen daggee billet ba jugee koo Amérique ñëw ba Sénégal pour def test ADN àdduna yëpp ak ngi lay seetaan fu mu nekk nii gàcce gi yaa fi des yaa mama yaa bañ yaa moom sa doom yaa ko sànni yaa tuumaal daam seen moom dafay dagg bi billet d'avion du porte la plainte yow de du porte plainte mama de dafay ñëw pour def test ADN ak xale bi su dee mës na cee ñam benn yoon ba test ADN yaa ko jur mu jël doomam dem yoon yow mi wër di duul nag di wër di fen su fekkee ne da ngay nangu àdduna yëpp seede ne yaa tuumaal daam seen mu jugee ko Amérique ba Sénégal def test ADN nga daw gàcce googu yow nga wéetoo ko soo ñëwee torox ndax yaa ko jur kon fii lay tëjagum waxi masal amatu wax maanaam wax jeex na <laughs> wax moom jeex na takk takk takk <laughs> barki Baye Niass te daam seen waat na ko ci sëriñ Saliou Touré waat na ko ci Serigne Saliou ne musta xam jigéen mu ne waaye nag tuuma yaakat katuma du ko du ko dindi ndokk yàlla nag mama moo la tuumaal yow yow masali ne yaa ko katt yaa ko biiral waaye yow miñ tuumaal katt yaa tuumaal sa moromi góor tu es une lâche maanaam tekki woo dara daam nag mu ne wax ju du bari nga dem ma ne laay fii dugg fii dem fële mu ne du def loolu te du xaar heure bi mu waroon a ñibbisi dafay dagg mboolem itteem mu ngi liggéey pour am paas daggal boppam paas ñëw di tuuma ndax as gor la kenn du teg ci daram tuuma mu am jabar am njaboot dëkk ci dëkk bi nekk artiste nekk porteur de voix duñ ko tuumaal ci ay bajo yow ma sali na comme yaa tuddoon daam daam ñëw di def test ADN <laughs> yow ma sali nga ne yaa woon ma ma ne ko kaay ADN mu bañ <laughs> léegi leer na <laughs> c'est que c'est que da nga juum quoi maanaam man mi nga foog ne da ngay def en face ak man mënul nekk fi mu nekk nii àdduna yëpp ñu ngi xool su daam di déclenché pour ñëw dinaa la postel vidéo ne daam a ngi ñëw bés bu daam di dem ànd ak xale bi ban docteur la jël ñaari deret yi dinañ ko wane ni dinañ la notifier yow Massaly yónnee ko sa avocat yónnee ko sa kër yónnee la message nga choisir nag da ngay dëggu dem def test wala da ngay doxaan sa ndey bañ ginnaaw bi nga tuumalee daam seen ginnaaw bi nga bañee doom ju jigéen joo xam ne mën na doon lu ne ëllëg yow yaay choisir ni ko bëgge comme tu veux mais li war a leer ci niñ ñoom dëgg dëgg leer na ci ñoom Massaly leer na nañ ADN yàlla bi leer na ku xool doom ñi xam ne yow sa duul yi nag leen la man maanaam stratégie bi mooy puus la ci miiru wis bi ba nga wan àdduna ne man dew ma def test ADN sa ñi la doon supporter ñi doon duul ngir yow yëpp xam ne yow yaa bañ a dem kon yow la wala nga dem muy sa doom nga jël ko ñëpp xam ne ba nga ko bañee tiigal neen sa ndey ba nga nangu maanaam mënoo rëcc ci yow <laughs> yónnil lay liveur ñu lay lay liveal mënoo rëcc te li dugg ci internet yi ba pare <laughs> masali noppalul mu ngi ca dugg génn maanaam yow mënatoo rëcc amut fooy jaar you don't have choice nangu def test ADN résultat bu génnee moom yow xam nga ma xam na man xam na <laughs> yàlla xam na ne yaa jur wala daam seen ñëw ba pare li gën a garaaw yow coow li masali maanaam bi la yàlla naree weer rek mooy bi ma ci duggee bi la yàlla naree weer mooy bi ma ci duggee ak ñàkk bi nga tey man live rek nga dem dugg ci Kaliphone foofu da juum dugg ci Kaliphone moo la indi nga tuumaal Dame seen dugg ci Kaliphone moo tax nga ne yow yaa waxoon ADN ñoom ñu bañ léegi nag dina leer maanaam waroo woon a wax danga cuune foofu danga nga nelaw billaahi da nga nelaw man bi ba seetaanee live fi gis nga wax rek laa ne li ma bëggoon am naa ko ma maanaam di nga wanaa suwaat sa wax yi ci public bi ba ñëpp xam ne dul kat moo tax fi mu nekk nii yéen yeneen kilifa yi seetaan live bii téye leen seen koy téye leen seen koy te yem seen jabar yi jigéen joo jaral mu fekk si la hôtel di la jox boppam boo ko proposé takk suuf mu nangu takk ko takk suuf téye say preuve kat ba doyal fu mu jeexee jeex na téye leen seen koy gis nga coow yu masale bi mu jógee ba tey ñaari ex ministre jël naa leen ci ron ñu nangu benn député jël naa ko ci ron mu nangu Mamadou Faye maa ngi lay woo da nga biiral benn jigéen jox ko sept cent mu tuur biir bi jigéen ji bañ nga porte ko plainte brigade de recherche maa ngi koy topp balaa muy yeggu ci taabul bi ba nga doon katt sa biir bureau ak ci douze anglaise bi yéen ñaar la woon ñett yoon nga ko katt mu ëmb nga jox ko sept cent mille na ko yàqal biir bi maa ngi lay woo jëlu léegi nag beneen maire bu boleel Cheikh Fall beleel Cheikh Fall ci Kaffrine ñu ngi la situation moom samedi la ko may bu ko nangoon ma tegal leen preuve man awma problème ci ko kat kat diggante nit ki la ak yàlla bàkkaar bi du suma affaire awma problème it ci ko kat ba pare nangu nattu la wala sàggante la nga jël sa responsable li ma bañ man mooy góor gu ànd ak jigéen di ba mu neex la mu biir nga bañ lii laay xeex man mais man baaxuma maa gën a yées maa gën a bon nangu naa ne sa safara laa jëm waaye nag soo bonee da ngay nangu ne da bon mais doo bon ba pare toroxal jigéen lii rek laay xeex man. man lii laay xeex su ma wax leer na nañ ku fi am sa kooy nit ki am bajoom jox la ko du suma affaire moo tax du ma mës a jigéen ak góor buy kattante du suma affaire. du ma musa weer it ñaar ñuy kattante du suma affaire loolu bàkkaar bu yàlla moom la du man may atte bàkkaar ki fi katt tamit nangu ko ba jël sa doom yi du ma ko nangu du ma su ma yoon nekku ci ndax doom moom wërsëg la rek waaye su doon ku katt am doom am na ñu am 2000 doom loolu su ma yoon nekku ci li ma bañ ma wax ko ma répété ko ànd ak jigéen mu wóolu la di la jox boppam nga katt ba mu ëmb bañ war koo toroxal man Cheikh Ahmed lii laa dut seetaan su ma su ma leer na maanaam li may xeex yomb na ñëpp xam neen ko <laughs> leer na nañ masali sa biiral yi nga biiral nangu su ma yoon daf cee nekk waaye mënoo biiral jigéen nag mu di la topp pendant setta bëggul alal ci yow bëggul xaalis bëggul sa affiché wu ak yow juste nga nangu ne yaa fakkatoon yaa ëmb doom ji am kayit dem jàngi rekk la bëgg yow nga bañ ñu koy laayfal di ko saaga di ko xas nga dem fa di soutenir ñooñu di am looy wax lii mooy li ñaaw lii mooy lu irresponsable ndax boo toogoon nga considéré setta yi ndaw si muñ musta dem live TikTok musta dem fen di la topp di la neexal sa ay mbokk sa ay rakk sa ay sœur sa ay frère ñëpp di ci wax ñëpp di ci sonn juste pour nga nangu ne yaakatoo coono yi yëpp ndaw si jot daj pendant sept ans you never consider her feelings you never have mercy towards that young beautiful girl at age of 19 you could have protect her but you didn't you abuse her corruption de jeunesse xale bu am 19 ans nga katt ba biir mu ne la dama biir nga ne ko amul problème continuer di katt ba mu am 3 mois na ko yàq ko da nga bëggoon su dee nga ñoom ñàkk ko su dee woon yaay kii ñaw kii ñëw jënd nag nekk ci dëj ba seddal ko lu baax ñu naan masali kay dafa yiw masali kay ak a bëggoon mama fekk yaa ko rey yow yaa ko rey Sénégal bis boo dee ki doon jënd dëj bi sa nag euh, nag bi sa dëj kooku la rey benn bi nga feebaree njëgi nag bi bu ko defoon doo dee wala kàddu ga naqari moo ko wax wala ba nga soxlaa ndimbal moo la ignoré ba nga dee tey su ma mama jëloon risque yàq biir bi dee yaa jënd nag ba yaay dëj yaa fay taxaw ñu wër la nag naan eh, kilifa gi ñu ne masali ñu ne jox leen ko kàddu fekk xale bi yaa weetoog moom yaa ba mu ëmb yaa ko yàquloo biir yaa ko rey ñaata jigéen ñooy victime ñaata jigéen ñooy victime fii ku fi mën a jënd nagu dëj war a mën a faj malade bu feebar man Cheikh Ahmed maa ngi koy wax li muy xarit muy soppe muy ex girlfriend muy girlfriend muy jabar muy whatsoever suñ dul déggante ma ak yow bi su ma amee problème bu ma woo pour seet ma nekkal ci li nga nekk ma nekk ci lu ma nekk ba nga demee ñama wéetaloon nekk ak ñoom doon dox su ma amee problème they can support me emotionally psychologically financially and whatsoever I don't need you unless I call your attention I don't need you doomu aadama dina dund ay stress biir néegi sëyam billaahi wallaahi tallaay dafay dem ba mel ni amul mbokk su jooyee sax doomam yu ndaw yi ñoo topp naan ko yaa lan la lan la du am sax ku ko ne how are you doing comment ça va amu ko bu defee réaction ñu ne ndaw si dafa réew dafa xamadi xamut boppam dada daa dada daa gaaw neen ci juger doomu aadama mais gaawuñ ci soutenir doomu aadama tey boo noonu neen rek réglé un million ñu ne fu ñu koy jëlee mais boo noonu un million laa am ñu tegal la problème yoo xam ne lekk na un million yi. te taxawal bañ xool la nga ne hoo oh, ñu ne waaw nga ne leen nitu intérêt la dem sa yoon après lan la dañuy wax juge la dafa réew dafa nangam mais yaa ngi ci jàmm man maa ngi ci jàmm man xam naa ne man maa ngi ci jàmm ma parce que bi ma xamee ne société bi dañu hypocrite man dama ñëw ba ci seen biir ba ñëpp taxaw ñu xool ma ma ne leen nitu intérêt la. parce que ñun ñëpp moom leen doon mais ñemewuñ ko wax da ngay gis jigéen juy ñaan lu góor gu baax pour mu mën koo jox intérêt nga ciy wër nga gis góor gu toog liggéey alalam di seet ko rafet kum kat intérêt nga ciy wër mais nanguñ ko wax. société senegal gii ñu nekk baax fa bon la mbon fa mbaax la lan laa bëgg a wax su fekkee ku la tooñ nga muñ jéggal ko den naan da ngaa ñàkk fayda amoo bopp. su dee ku la tooñ nga defanteek moom ñu ne kii dama koy motu nit yi seytaane dafa bëri fitna kuñ tooñ lu bari nga fayu lu bëri buñ bàyyee ña lay tooñ tudd la yow mii fayu bu leen faale bu leen leen faale dama ne as tooñ des koy baale yabaate des koy faj dama ne as tooñ des koy jéggale ci la tooñ bu jéggaloo yabaateeg mbéjum kanam ñooyam des koy faj su laajee wax waxal bu laajee jëf-jëfal yonent bi yàlla yónne woon ci yërmande luñ ko tooñee daf ko baale mais bañ ko bëggee dafa téye jaase di rey ay mbokkam ku la yeb nga baal ko xeeblu nga sa bopp ci kanami askan adduna des koy xam des koy dund des koy mën tey naa feq bi gën a yéeme ci àddina léegi say mbokk ñoo la koy def mooy mbokk yoo xam ne doo leen gis doo leen dégg bu ñu waxee ci yow duñu wax lu rafet te balaañ lay mën a conseiller ñu toog ak jàmbur waaye ana sa waa ji Cheikh Ahmed yaa ngi koy dégg mais digal leen ko li muy wax ci internet bi baaxul rafetul pour pourtant yaayam ku baax la de lan moo ci yooni suma xarit bi yow mii suma mbokk mais del wax ak faatu li mu sol de gàtt na lu ci yooni xarit bi ci faatu te nga bokk ak Fatou war a mën a dem ci moom balaa lay mën a conseiller nit ñi toog moo tax dangay judd doon jigéen duñ la jàngal nu ñuy fóonante ni ñuy raayante ni ñuy kattante ni ñuy sagoo farata sa diine dañuy xaar ba muur la nga gis sa bàjjan boo xam ne xàmmee woo ko amoon sa nombaam euh, euh, alaaji Cheikh kaay leen toog kaay leen sànni kàddu ñëpp toog ñu teg la yaa ngi sonn waaw euh, sëriñ bi man <laughs> bi ma ko bayalee lu si si lan moo ci yoon yi ki toog bi ngay bayal sëriñ bi waaw sëriñ bi de bi ma ko joxee addiya daf ma ñaanaloon moom daal xam naa ne sëy moom muñ la what the fuck topp nit ki di wax a wax ba moom day mujj maar ci seen wax ji day bëgg ngeen noppi mu dem su sëy ba paase dootu leen déggati dootu leen gis du ngeen toog xool ndaw si ngeen maye ndax jëkkër jaa ngi katt katt yu neex seen yu nekku ci ndax dépasse mat na seen yoon nekku ci ndax ñu ngi koy dóor seen yoon nekku ci yéen daal bis bi rek kañ ngeen di ñëwaat kër ga mooy su amee ngénte ngeen ñëwaat toog su dee bi ana suma eeli maam bi man mbéji maam laa lay jox nga naan ma yeeli maam bu dee Sénégal ñu def ajaratu indi seen géwél ci xewu sa sa sët sa doom quoi indi géwél ma ne ko cum jeg bu baax baa de ba nga toogee ba tey jóge ajaratu Fatou Ngom moom laa gungee ci xew mais paas ya ngay jox géwél yi la leen di neexal pour ñu bàkk la ci ngénte loo xam ne sa doom la dajale ko dimbale leen ñu am ñaari saako ceeb ñetti saako ceeb my bu maanaam léegi mbokki léegi xew ak xew la moo tax ku ci xew la ndawtaloo ko mu mere la we are all damn fake ba pare nangu ne ñun ñoo nekk ci dëgg ñun dañu fake ba pare gëm ne ñoo nekk ci dëgg xoolal tey problème dafay am ci jëkkër ak jabar nga ñëw rek ne jigéen ji muñal ban hadis la man aaya alquran la duy demee noonu lislaam demee loolu dictateur la balaa jigéen ji muñal lan moo xew lan moo xew góor gi ne yow la def jabar nga ne ko man yow lay def jëkkër ngeen sëy mu war la respecté jox la cër bi nga moom mu romb la dem doxaane nga jàpp ko ñu ne la muñal lan ngay muñ et finance maa ngi laa delloo ziar yow ak père ak njaboot lan ngay muñ man das das doon understand looy muñ au lieu ñu teg góor gi na ko yaa ñàkk jom góor du dara lu mooy responsabilité ndax doomu aadama yëpp benn leen yemal sa kër koo bëgg takk ko indi ko ci kër gi amuloo droit ci lii jéggalul sa jabar yaa ko tooñ duñ ko def de den naan yow nga muñ waaye yow miy jigéen nag bis bu la jamono nattoo ak raison bu mën a don ba nga am far ci sa biir néegi sëy <laughs> laa ilaha illallah muhammadu rasulullah maanaam sa doom yi juddoogul dineen ko yëg ñooñu seen doom yi dineen ko yëg koñ bi dineen ko yëg mbokk yi dineen ko yëg parce que yow yaa am far mais moom mi am gel yow yaa ko war a muñ mais loolu du lislaam du lislaam xanaa xamul leen de yéen ni ngeen amee xol di doxaan ci biti noonu la jigéen amee xol di bëgg te mu ngi sëy billaahi wallaahi talaay jigéen day am jëkkër góor romb ko rek mu tooy fi mu toog di sii ko sama ndey xoola kii parce que nit la mais ngor gi day xam ne dafa am jëkkër mu géré ko téye ko boobu ko góor gi doxaanee mu bañ mais yéen nag seen koo yu ndaw yooyu bu ngeen tourné gis jigéen rek dem doxaani ne góor ngeen mais ay imbécile ngeen yéen respecté leen seen engagement comme ci biir néegu sëy ay doomi xaram ngeen mais jigéen day am jëkkër nopp jëkkëram lool gis góor xemeem ko parce que nit la mais day am ngor mu xam ne mu xam ne xemem teef boobu noonu warul mu téye boppam jigéen da nga koy takk fekk ex faram bee nekk ci xelam ba teg moom la bëgg mhm. moom la bëgg ci biir xolam mais du dem parce que ngor gi di nga takk jigéen nga koy laal laalu yu métti yoo xam ne neexut mais day métti ba muy jooy nga foog ne dafa neex fekk laal yee métti muy waxtaan ak góor ci téléphone ba góor gi séduire ko émotionnellement ba muy yéene jox ko boppam mu ragalaat jàpp bañ wala mu def ko sa rëccu ko mais góor du rëccu ay imbécile première qualité mooy góor yéen daal dangeen ngeen foog ne jigéen buy yuuxu dafa neex buy jooy dafa neex non non non yuuxu neex ak yuuxu naqari du benn faaw ngeen xam ko yenn saa ngay laal jigéen mu neex mais nga jam ko jam bu mit mu yuuxu ngay dolliwaat góor wéra dëmm la vrai dëmm mooy góor man dama noonu seen ñu naan dëmm amoon ma ne dëmm am na kay ñu ne ma kuy dëmm ma ne góor tey yéen jigéen ñi dama bëgg ngeen déglu ma man maay seen avocat di seen ambassade ambassadeur yéen laay waxal waxuma góor ñi bu leen yàlla wërsëgalee jëkkër mu romb leen ci kër gi di doxaan respectéwul heure bi mu war a ñibbisi arrogant seen kaw di leen jaay réew mu dem ba nëbbatut ko ba dégg ba yéen yéen a ngi xam ne kii mooy gelam